mbokk yi dellu si nuyoo bu baax ñu ñëpp siyaare ñëpp di gën a ñëpp nag sunu mbokk mu baax ma te féete woon na ci liggéey bu réeree muy alxuraan ñoo ngi koy siyaare ñëpp di ko bett nañu waaye suñu borom moom kenn wut am bett ndax suñu borom moom moo xam li muy def moo xam ne tax mu def moo xam ne mu koy defee kon dana war a diglu rek di diglu ndigal bu mu toll ak rek nu toll ko kon mën na ne am mën na ne lu. ñu waroon a am mbett lañu ci ñàkk gi ñàkk wettal bu baax wa mën noo féete ci suñ fépp toll fañ ko gënoon a soxlaa waaye nag yàlla moo xam ne muy def ginnaaw nag dafa noppalu ji moom ndax fii moom liggéey rek a fi nekk liggéey rek moom mënut a noppale mënut a mënut a neex ab liggéey dong nga fi nekk leen nekku kon nag euh, alhamdulilah bu demee ñu dénkoon ko euh, li jiitu ci liggéey bi muy liggéey bu rëy euh, suñu borom jafe ci coobareem loolu dañu daal daal delluwaat lépp ci suñu borom ndax moo xam moo sañ moo xam li muy def waaye nag alhamdulilah rabbil alamin taxul woon nag te nu ñàkk yaakaar ndax xam nañ ne moom suñu borom jeexlewul dara te eh, sëriñ bi mi mooy borom liggéey bi itam fa lu mat a fàggu fàggu na ko lu mat a fàggu fàggu na ko kon ci pàggute rek la nekk kon jaare mënu fi am loolu nag moo waral eh, eh, liggéey bi nga xam ne moom lañ dénkoon sëñ Maam Mor mu yor ko yor yu mu ko yore noppal ci wettul ci lépp ci ci biir ci lépp ci wàllu liggéey bi daal eh, eh, la jëme si ba mu amee itam dama jàpp ne dama dama daal di am yaqin eh, féete woon ci foofee mu nu wàllu taxawaay bi daal di yónnee ca si àbbo euh, xamal ko ne ko liggéey baa ngoog euh, te itam soxla nañ ko ku taxaw fa sëñ Mamour taxawal loolu it ban koy wax euh, amul ci benn jaaxle xamoon na ne daan ko am nanu koo bëggee hmm. loolu nag moo waral dañoo hmm, hmm, defe ko nii mu ko defee liggéey ba mu euh, yebal ko mu des fi noonu dañu joxe woon ndigal sëñ Mamour ñu jox ko ndigal sëñ xabar mii loolu nag euh, suñu xel dal na ci bu baax a baax a baax yaakaar naa ne boobu cër boobu moom euh, yeyoo ko ci wàll yëpp alhamdulilah rabbil alamin yàlla mooy def kenn deful na yàlla mooy def coobaram xëy na euh, bi mu bi mu fi jëlee sëñ Maamoor itam xëy na moom booba euh, rafetoon nañ jot bu baax ne dana am ku ko mën a moo ci moo ci agsi kon xalaat na boppam ba ba sañ xabbaan euh, loolu kon day daal doy dañuy daal doy sëkk ci daal di koy jox joxaat jox ndigal ca liggéey boobee suñ maam ma féete woon nu ca yoroon na ko yoroon rafet loolu dañuy daal di am xel mu daal mu sëkk yaakaar ju doy sëkk euh, ci ñu dénkaat ko suñ xabbaan mu féete nu ci wàll yëpp nag ci ci wàll yi yëpp ci wàll yoon wi eh, xanaa boobu da ciy gën a diis waaye doy nu ci wàll ci wàll ci wàll yoon wi yëpp kon nag moom sëñ xabaan kon nag mu ngoog eh, digal laa ngoog ñun ñëpp itam eh, lanuy sañ suñu warte mooy ah, ànd ànd ànd koog yow kon na xam ne euh, na ko daal sañ ëpp euh, ñëpp euh, dana ko ak yow ci biir activité incha allah te am ci xel mu daal nag baax a baax a baax am ci xel mu daal baax am nañ ci xel mu daal boo xam ne sax xawul la jar ñaan waaye teewul nag daan ñaan daan teewul nag daan ñaan daan ci mbaxu sëriñ bi mi def ak gàttan la ak tawfeex Sëriñ Tuubaa ci sa lépp nag biir ak bitti mm. loolu nag ci biir loolu biir ak fan gudd ak waa ànd kàttan na jiitu ci tawfeex jooju ba nga mën a nekk ci liggéey boobu te yàgg ci lool borom liggéey bi gàttu na la ak ngërëmam loolu loolu rek mooy kàddu yi <laughs> kàddu yi kon say xam ne ñu sant sa ñëpp waaw dañ sant bu baax a baax